salaamaaleykum nuyu nañu leen bu baax a baax itam feeti nañu leen am mbégte ci at bi nga xamante ne moo di 2024 gile télévision gu mag gile Témoin TV ñëw na fi ànd ak Makhtar Baye Fall waxoon nañu leen ko at ki nga xamante ne moo nekk si cadreur bi kooku di ki nga xamante ne moo di Arona Diedhiou ñëw nañu fi nag ngir fas yéene am ak yéen reportage gu am solo ci bisub Serigne Bamba gi fas yéene leen duppil lépp loo xamante ne ci màggal gi la ñu koy def bari na ci bokk na ci yoo xamante ni itam gis ngeen mbooloo mi bari na ci ñëpp ñoo xamante ni ñëw nañ ci biir dëkk bi ngir santale Serigne Touba boromam te mu doon lu am am solo ci loo xamante ne itam dinañ ci dem ci kenn ku ci nekk. Témoin TV nag dina dugg ci mboolem at yi dina dugg itam ci mboolem bërëb yi waaye itam du yem ci ñëpp ñoo xamante ni ñëw nañ ci màggal gi mba ji ñi nga xamante ne doon nañu gante dëkk ci biir dëkk bi sax dinañ jàkkaaroo ak ñoom te mu doon lu am am solo. kon bu leen ko fàtte ngeen abonné di ko jamais di partager di yaatal liggéey gi nga xamante ne màggalub ren gi dara du leen ci ëmp ak lan Témoin TV dina doon lu am am solo ci loo xamante ne itam dinañ ci ànd ak yéen xamale leen ak gan yi te du ñàkk itam dina ci waxtaane ñenn ci ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir dëkk gi la te yegg si nañ ci biir màggal gu mag gi la mi màggalu Serigne Bamba mënuñ ñàkk bu dee am na ku jàppani ñu jël ko waxtaan ak moom ngir ci liggéey gu am solo gi la ngir itam ñu waxtaan ak ñenn ci ñi nga xamante ne ñëw nañ ci màggal gi mënuñ ñàkk am na sama benn yaay boy boo xamante ne itam daanaka yegg si na ci biir kër yaay booy salaamaaleykum. maaleykum salaam màggal gi moom neex rek. Ah. ca kaw ca kanam waaw yow naka yow nga tudd. man Mati Mbengue laa tudd dëkkoo dëkk nootoo guy jamaa waaw. dëkk nootoo guy jamaa. waaw mbiri sëñ Touba moom ca kanam rek. waaw mbiri sëñ Touba moom. Ah. amul tànki ah, ginaaw tànki kanam rek. mais nootoo guy jamaa itam xam nga ne itam bari na fa ñoo xamante ne fa la ñuy bàyyi ko di ñëw. mais itam yoon gi loo leen ci daj ci coono wala amul benn coono. amul benn coono amuñu yenn jafe-jafe. Mhm. dëgg yàlla. sant sant sëñ Touba rek ak maam Cheikh Rayen Fall. mais yow ba ma la gisee dafa mel ni yow da ngaa kontaan yaay booy. oui dégg te naa. Serigne loo ci yëg. galaas la galaas dëgg la waaye ñoo ko déggandoo nee na sëriñ bi galaas képp la ci kon ndeke ne kon xam nga ne màggal gi lépp bànneex la waaw lépp bànneex la ak wal ak mbégte rek ca kaw ca kanam rek ca kaw ca kanam bégg nañu ci moom bu baax a kene keneen ñee ñi daal di koy jël ngir itam doon na loo xamante ne itam seen télévision Témoin TV ñëw na fi Makhtar Baye Fall ngir waxtaan ak ñenn ci mbokkum taalibe soxna si siyaar nañ la ah, ñuy delloo siyaar bu baax naka yi tey di sant sëñ Tuubaa bu wér tur wi naka la man ko mi jegan touba ali mbend di wa ke seigne bay eh wa ke seigne bay seigne bay lo seigne bay touba ali mbend bu touba ali mbend ya fa nga baye ko wala baye ko ñew magal ñew magal si mais magal gi tay ji mën ñew wax ni tay ji naka don na lo xamanteni lu ñepp di ñew la mais nik naka la war magalé e, ci bu ñewé bu ñewé na and ak yar ak teggin waaw na joxe cieur bi bam joxe respect deug la na dundu na dundu murid gi deug la am mourid day amuk yar amuk talibé deug la waaw na dund murit gi. dëgg la am murit ak day sol lu yiiw. di wax lu yiiw. di def lu yiiw. dëgg la waaw kontaan rek nag. ndax tey tey doon na bés boo xamante nii ci ñun tey bés bu rëy rëy la. wér na ndax li tax mu rëy mooy sëñ Tuubaa dafa tukkoon ngir ñun. ah mu ne ñëw leen sant ma suñ suñ borom. ak kay kon lool dañ cee war a kontaan. mooy dëgg. dañ ko war a ñëw santale ko ànd ko ak yar ak teggi ndax sëñ Tuubaa dem na ba ñëw te fi dara loo xam ne nii yeneen lu ñaaw la. dëgg la. waaw Serigne Touba man nag kontaan naa maa ngi dëkk Touba Ali Mbenda mais looy looy soññ itam sa mbokk soxna yi nga xamante ne war nañoo ñëw ci màggal gi nga itam màggale màggal gi nga xamante ne Serigne Touba moo ko woote te wax nga ko léegi ngir ñu santale ko yàlla boroomam waaw léegi sama mbokk jigéen yi dama leen di wax ne buñ màggal seen nañ sollu jot dëgg la di muuru nañ nañ nañ nañ ànd ak yar ak teggiñ nañ togg di yàq nañ simmeeku ci waañ yi jaayante li sëñ Touba dundoon si géej gi nañ ko dund fii ci bésub sëñ Touba bi. laa ilaaha illallaah. day wal ñëwal ñëw déedéet ñëw ñëw ñëw ñëwal ay eh, ñàkk itam mënut ñàkk faaw nga ñëw ñaari baat yoo xamante ne xas day Serigne Bambay faaw nga. mënut ñàkk itam faaw itam nga ñëw ndax mënut a ñàkk xas day Serigne Bambay yow mënu ñëw ñëw Touba ah te itam mënuñ cee waxtaanee yow lenn. mënuñoo ñëw Touba te faaw itam nga yëkkatil ñu ko te xam nga ne lii du hasard te mooy TV Makhtar Baye Fall ñëw na fekk si mbokkum taalibe yi ngir dem ñu won leen léppi màggal gi léegi balaa ñuy def dara rek ah dañuy présenté itam wax sa tur nga itam ñi la xamul nga itam mu doon ñëpp ñoo xamante ne njëriñ lay doon ci ñoom waaw man la ndongo seen barki sëriñ bu Pikine yow maxu sama xarit nga yow maa ngi lay yàlla lafal la cat. dëgg la defal la jàmm. ndeysaan yow Baye Fall nga. yàlla defal télé bi jàmm. ñëpp nañ ko seetaan. dëgg la waay ndax maxu mi Baye Fall la. wér na yàlla ko yàlla defal jàmm. ci barke Seydina Muhammad. wallaahi Serigne ba mu ñëwee ci réewi gànnaar ya naar yaa nga naan ñëw leen bamba ñëw na allah tuuba ba mu ñëwee ci réewi gànnaar ya naar yaa nga naan bii maara doy na waar naari gànnaar ya sëriñ tuuba jox na leen gileem nu rendeey ah Serigne Mamar Penda ko wamat indi serigne Bamba jox na len khalis bu andak ak ba nopi waddu borom mal fayak pisi mayluus borom jumaaji ah. amul morom deug la way du masa am morom fii ci àddina alaaxira Sëriñ Bamba mooy borom màggal gi. wér na. borom tukki bu sori bi. waaw borom sërica bu duun bi moo waral lii. moo waral xëlëf xëlëf gi. ci bàyyi Sëriñ Saaliw Mbàkke. bàyyi Sëriñ Fallu. bàyyi Sëriñ Moodu Mustafa. bàyyu Cheikh Abdoulaat. mooy baayu Cheikh Abdoul Khader Serigne Cheikh Ibrahima Fall. Lam Amar Fall Seer Njaayo. Biram Njabeey ngi ci ngaayi maam Seera Fall. Lamp doo seen moroom. na solo itam daanaka lii mënu ci woon ñàkk. ñàkk waaw yow sama xarit nga yow mën naa laa nangul lii. barki ku ne xam ne màggal gi jàngkat yi dañuy dañuy dañuy sonn. barki sëriñ waaye yow mënumaa ñëw nga téemale micro. waaw ñu bokk lépp bokk pikin ginnaaw raay. ginnaaw raay yàgg na loolu yàgg na. loolu yàgg na boobu ci Alaaji Mbay la. barki borom Tuubaa <laughs> loolu la yàlla dogal waaye yàlla yàlla yàlla dafa amoon loo xamante ni nii luy yee ci biir nit la yow la yàlla loolu dafa ne yeeg yeec yi luy nelaw ci yow la daa yeeweeku yàlla yaaw man man man ab taalibe laa yow ma ko sama waa ji Baye Fall bi waaw jaajëf ñoo ko foog am nañu mbégte kontaan nañu bu baax a baax baax kon dañuy wër ci yeneen i dal daal di ak yéen ci li nga xamante ne itam moo di Témoin TV ak Matar Baye Fall di ci cadreur bi kon ñu dem te ñëwaat